Oustaz Modou Fall ñu ngi nuyu ñu ngi la bëggee waaye làmmañ lu ko wéttali ci gémmañ lu dul ay bañ borom waxte ko Sénégal gépp toog nga ne Magaram Faye Sall may na la suukaru koor boo xam ne mën nga ci suukar ba déwénte lu jeex war wax ana lu tax war a koon wax dafa am ñu ne ci réew mi nga am xam-xam suñu borom wax ci lekk lu lewul bu la ko Youssou Ndour mi ngay liggéeyal mayoon du naqari ñi ngay bokkal plateau bu la ko mayoon du naqari ndax ñoom s xaalisu bopp lañ yor waaye Macky Sall warula may ay ñun ñoko bokku tam ñu ne ci réew mi ya leen gën position tam ñu dërëm buñ fébéré duñ faju buñ xéfé duñ lek buñ maré duñ nan ñu nek ci yité nek ci ay xat xat ta amna ño xam ñu nek ci ay tolof tolof nek ci ay jafé jafé yow bu la Macky Sall maye ay million boole ko jëndal la wata war nga xam ni riba wa yudu sadaqat donc war nga xam ni la Seydil Hadji malik waxon sa sëriñ ba doon na bu ñu Modou Fall bu la poñu xëtum aduna mi fakk moko ma do dundee diiné nga bayyi xel sa ak sa borom nga bayyi xel sa ak sa borom nak làmmiñ di ko wéttali ci gémmañ di ay doj borom wax dëgg te ko loolu mooy seen problème ko ñu xet ngeen topp bu leen Macky Sall bàyyi woon mayu leen dërëm di ngeen tedd ba faatu ndax suñu borom mi ko bind moo leen bind bàyyi leen yàlla xel ci doomu aadama yi nit ñaa ngi cay jafe-jafe buñ feebare duñu faju buñ xiife duñu lekk suñ maree duñu am duñu naan nga toog ci tale ni ko mu naqari nga taal gas toog ci ak Sénégal ni mu toll ak li bàyyi xel doomu aadama yi bàyyi leen lancé défi sénégalais yi nit ñu mën ñu nekk ci toroxtaange nekk ci coono nekk ci feebar doo faju nekk ci xiif amaloo lekk amaloo naan ngeen toog ci tale yi di kookuli nit ñi bis bu ngeen ñëgloo askan wi lu leen dal yéen a ko teg seen bopp doomu aadama nag doo wax ci rasulillahi ba nu bëgg la nga bëgg a waxaat ci am xaalis ba nu bañ la maytu leen poñe xin mi dee leen di sànk rek